aaru nag askan wa dëkkee Médina Gounass ñoom jamono ji ba léegi ñi ngi wéy nag di dëkkeek ndox yooye nga xamante ni nag tawu nawet bi moo ko fay bàyyi ñoom nag ci benn jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñu amaloon ko ci seen gox ba sàkk nañu daal ci ñaar ñi nga xamante ni ñooy yootu bopp réew mi di candidat à la présidentielle ci deuxième tour bi ñu nag gëstu wala gersu loole nga xamante ni nag moo di seen jafe-jafe jooju ñu yàgg a nekkal reportage naat suñu naataango Assane Diop ak kii di Papa d'évacuation yu ndox bi war a jàll yu ñu mënatul jëfandikoo moto pompe yu doxatul ndox buy taa tali yu oto mënatul jaar lii mooy li nga xam ni la wéy di dund ba léegi ña dëkk ca commune Médina Gounass nekk na loo xam ni sonal na leen te itam mën naa jur ay jàngoro yàgg fi lool itam te waa Gounass yëpp di ko jooy te suñu sañoon itam ah képp ku leen ci mën a dimbali dimbali leen ci muy njariñul ñëpp du dañuy dëkk si ndox bi quoi depuis nawet ba léegi ndox bi mënul fexe ba jóge fii. ndox mi de ngi nii ne xala rek. jaaxal bu naat yëpp day bal seen nga ko nii seen ga ndox mi tero tero borom mi nga bal xam nga bu fanaanee bal di nii bu bët setee ah day dal di bari ah boole nag ak lii bale ci suuf ak li ci ci kanamu inondation yi nga xam ni indil na leen ay gàllankoor yu bëri ñoom askan wi dëkk ca Médina Gounass ci wàllu njàng mi ci wàllu wérgu yaram ci wàllu li ñu wër environnement ak ci wàllu cadre de vie mouvement ànd suqali Médina Gounass ngi koy ñaxtu. mbënd société daf fi yàgg nit ñi ngi wax depuis 2005 waaye ñun 89 lañ tàmbali di nekk ci mbënd maanaam ñaar fukki at ak ñett ci bisub tey jii ñu gis ne it mbënd moomu tey. li mu mujj jur ci ay gàllankoor dafa bari tax na amuñ wér-gu-yaram yu ñu war a am tax na suñ doom yi ni ñu waree di dem école di ñëw mu am ci jafe-jafe tax na tey jii wàllu koom koom-koom boo xoolee sa ginnaaw rek kër gi ngay gis kër gu jàmbaare la waaye tey ji boo xoolee di nga gis ay place yoo xam ne boobu ba léegi dañoo tëj ña ca waroon yëngatu mënuñoo yëngatu ndax ndox mi tax na njaay meeg njënd mi demeewul ni mu war a demee ci kaw loolu mouvement ànd suqali gunaas jàpp ni moo téye kàddu ñi nga xam ñoo di askanu gox boobu yónnee nañu bataaxal ñi nga xam ni ñoo di ñaari candidat yi qualifié ci second tour bi ngir bu ñu toogee ci nguur gi mën a saafara jafe-jafe ñi dëkk ci gox boobu. ñoom ñaar ñëpp dañoo xam barab bi fii ñu taxaw tey jii Ablaye di ñëw na fi ñëwati fi fii ñu taxaw tey jii Macky Sall ñëw na fi ñëwati fi suñ fi doon ñëw tey jii duñu laajte barab bi dañuy dox ba ñëw fi te leen ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk si ñoom kii jiitu fi kii topp ci moom kon ñoom ñaar xam nañu ne barab bii ñu leen di votel lañ ñu am ci ñoom yaakaar lañ waaye tey ji ndëgam kenn rek mooy mën a doon jiitu réew moom te ëllëg ñoom ñooñu xam nañ barab bi xam nañ problème bi fi nekk xam nañ la koy saafara moom lañ leen wax ni leen woowuñ leen du du woo leen 1989 2012 ñaar fukki at ak ñett ngi nii ñi nga xam ni ñoo di ña dëkk ca Medina Gounass di am ay jafe-jafe te li leen ko indil di lu may inondation yi régime bu mënti ñëw toog su weesoo élection yi ñoom bëgg nañu ñu saafaral leen seen i jafe-jafe